avec TFM, avec cette manipulation. C'est la télé la plus dangereuse du Sénégal. C'est la télé la plus mauvaise du Sénégal. C'est une, une télévision, ça, dans le Sénégal. c'est des émissions commandées. da ngay commandé émission nga wax li la li loo bëgg ñu waxal la ñu waxal la ko ñoom looloo leen fa bàyyi c'est des comédiens bu leen dellu ginnaaw nañu gàtt sa gàtt sa ak ñoom karma moo leen topp seen communicateur traditionnel bii ñuy yuuxu ko tëbaka dal jéggalu leen ak def leen dara bu kenn jéggalu ñoom li ñu def Ousmane Sonko ci ñaawteef yëpp dañ ko jéggal c'est Abdoulaye Der qui a créé ce procès Birima Ndiaye ñëw na la ne ko randul ngeen nekk ci seen i caaxaan yàq dëkk bi yëpp ngeen yàq dëkk bi yëpp dëkk bi yëpp ngeen yàq xale yi ne ci dëkk bi bëgg seen réew bëgg liggéey mën mënuñoo liggéey xam ngeen ñaata xale yu xarañ ñoo nekk Sénégal ñaata xale yu am xam ñoo nekk Sénégal tous ces ressources humaines ngeen jàpp ko Amadou Sall di dil ak benn politicien bu nekk Rufisque ngeen di bàyyi xale yi ñuy dugg ci gaal gi ñoom ñëpp pour génn réew yéen man naka ngeen di ne bëgg ngeen Sénégal yen naka ngeen di ne yéen bëgg ngeen senegal ngeen di ne yéen vous aimez le Sénégal you guys don't like the country yéen boo leen bëggoon Sénégal Amadou Sall ak ay politiciens ñoo nekk di teg dil nii pour génne xale parce que nee nañu Amadou Ba pour mu gagner ay élection il faut lii voté néew lool nee nañu Amadou Ba pour mu gagner ay élection Sénégal il faut ñuy wote bu ñu mat sax million <laughs> Amadou Ba bu ñetti nit voté woon Sénégal billaay wallaay tallaay da ngay ñàkk you're gonna lose xanaa de Sénégal ñu ne benn nit rek mooy wote yow rek yaay wote yow sax buñ la joxee pour nga wote doo woteel sa bopp dinaa ñëw temps yii temps yii am naa ay bagage yu tàng dama ne nga gum tekk di xaar am naa yu tàng jër dama ne tekk di observer parce que bu leen fàtte ne dañu nekk ci terrain politique tu ne pas tous tes œufs dans un seul panier mais dinaa leen junj junj doy na boroom xel c'est attentat terroriste bus bi ñu créé Sénégal attentat terroriste bus bi déglu leen ma de xam nga temps yi nee naa leen dama am ay bëkk nekk xalif général la temps yi new ma xalif général réseaux sociaux yi nag parce que damay bañ patriote daan non non ñoom ñooy kii ku ne moom mooy xalif général yéen jël leen xalif général réseaux sociaux xalifu généralu sama oto bii laa taay sama oto bii ma nekk ci biiram man maay xalif général bi taay mais damaa may bëkk nekk GD bëkk nekk bëkk nekk yi ah Antoine <laughs> Antoine Antoine dil amati de. xibaar amati na de Antoine nee nañu junj doy na borom xel Antoine dilu bus bi maanaam attentat dilu bus boobu nga créé Antoine amul benn xale bu ci rëcc fan yi daw dem Nicaragua <laughs> Antoine sa dil bus bi dil dil bi xam nga dil bi pour mu mat. pion yi pion yi amul benn bu la ci rëcc ci pion yi daw dem Nicaragua <laughs> eh Antoine eh. Antoine Antoine dil ba jaxasoo de eh Antoine problème am na de falaa mën yem en tout cas maa ngi xibaar xibaar buy tojati encore gouvernement Macky Sall xibaar bu koy yëngalati encore ba ci racine comme ni ma leen ko waxee seen dinu biis ba am na kenn ku ci rëcc daw na génn na réew ma jaar Nicaragua falaa mën a yem falaa mën a yemagum bëgguma joxe lépp parce que bu ma joxee lépp léegi du saf parce que loolu bu leen fàtte day daaneel état Macky Sall te bi yoon kooku dafa yegg ci réew oncle Sam yee problème yaa ngi daw bi yoon moom duma leen baal de CNN lañ koy teg seen dil bi bi yoon Macky Sall CNN lañ lay yóbbu dañuy taaj booy bi CNN ñu koy translatal muy wax dil bi di ko teg di teg dil bi benn par benn Antoine c'est fini yéen pare ngeen vous êtes fini yéen xawma ba léegi kan moo leen di conseil waaye ku leen doon conseil war na leen ne yéen mënatu leen tabax ak gouvernement jël leen seen dàll daw vous êtes fini pare ngeen sa deal ba Nicaragua booy ba daw na falaa mën a yem ak yow yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu kaarma la tudd iskool kaama nga la nga labal nit lu bon ñu fay la ko noonu la tudd léegi waa TFM ñoom laa gis nii dañuy tëbaka dal ak xataraayu waajaa waajaa nga tëbaka dal communicateur traditionnel baa ngay tëbaka dal mun a ñoom dañ ko accuser lu mu deful mais yéen est-ce que xam ngeen ne Abdoulaye Der damay ñëwaat encore ci touram wax naa leen ko toujours Abdoulaye Der mu jàkkaarloo moom moo gis Gabriel Kane def benn post ci Facebook am di soutenir xale bu jigéen bi sant Sarr Abdoulaye Der woo ko téléphone ne ko ah kontaan nañ ci yow de yow est-ce que di nga mën a ñëw yii nii yii dañ koy soxla ñu ñëw nii nga defal ñu bagage parce que waa ji vraiment dañ ko war a daaneel Abdoulaye Der moo def loolu mu jàkkaarloo invité Gabriel Kane boo leen demee xoolaat émission boobu. la première émission de Gabriel Kane au TFM ba nag Abdoulaye Der boobu ba Gabriel Kane keroog bi muy pare boo leen ko bàyyee xel mi ngi naan waaw mi ngi ne malal ci tukkuleer fàttali naa ko ko yàggul mi ngi ne malal ci tukkuleer an ay daa Macky Sall yow bëgguloo Macky Sall Abdoulaye Der moo def loolu Abdoulaye Der mu TFM moom moo invité Gabriel Kane ci post Facebook bu Gabriel Kane defoon rek di soutenir Ablaye euh, Adji Sarr mu indi ko teg ko ci plateau bi ñu koy laaj question ñuy xolli deru Ousmane Sonko bi di ko toroxal di ko sosal di ko fenal di ko waxal di ko waxal di ko waxal ngeen ko teg fan ngeen teg loolu fan ngeen teg ñu nekk ci ab réew yéen TFM ngeen takk seen tele borom tele bi di yàqkat di soskat bu mag Youssou Ndour àdduna bi yëpp xam nañ ko c'est un grand opportuniste l'opportuniste le plus grand du Sénégal xam nga man dama leen di wax toujours nee naa leen man su may wax ci nit su ma amee lu may wax ci nit duma ko xalaat ñaari yoon damay wax li nga xam ne loolu laa gëm te loolu laa xam ci moom est-ce que xam ngeen ne man awma benn problème personnel ak Youssou Ndour est que xam ngeen loolu est-ce que xam ngeen ne man su ma neexoon jël téléphone woo Youssou Ndour est-ce que xam ngeen ne am naa jàmm lool ak famille Youssou Ndour bu ma neexoon jël téléphone woo leen mais man dama bëggul affaire opportuniste man bëgguma affaire naaféq man bëgguma réewu naaféq man dama bañ ay naaféq naka ngeen mën a toogee ñuy xataraayu di tëbaka dal waaw TFM li leen dal waaw waa ji dañ ko sosal mais dañu sosal doomu jàmbur pour cinq ans Abdoulaye Der mi nekk TFM nee leen moom moo invité Gabriel Kane ci seen télé ba pour mu dimbali ko yàq Ousmane Sonko Gabriel kat ngand ngand loolu dugg ci waaye moom fi mu toll nii mel na ni kadaara bu ñu soqi euh, tuun wi jaaxle na Gabriel déggati ngeen ko ci mbirum Ousmane Sonko jommi na parce que mbirum Ousmane Sonko c'est rien que des tappale ak ay sos ak ay fen ak ay wurit waraj ana Adji Sarr tey xool leen Adji Sarr ci luñ ko dugal guuta guñ ko dugal ñoom patate chaude la ñoom dañ koy daw ñoom dil nañoo ak moom ba la ñu jëlee ci moom akas ndaw xam ne du leen yóbbu fen ñu daw imam Alioune Badara Ndaw l'observateur bii l'observateur bu TFM bi amul lu ñaaw lu mu bindul ci imaam Alioune Badara Ndaw ba ci man mi man mi accusé wu ñu ma fi terroriste man barki dem boo njaay rek bindalu ñu ma lu ne ne police américaine may wër waaw ñu ngi wër Tunkara Tunkara wantit FBI nangam nangam lu nañu wax ko ana Tunkara xanaa tunkara xanaa dafa am juróom benni tunkara ah léegi xanaa juróom benni tunkara moo am ngeen toog depuis kañ ngeen gis leen ñuy jàpp Sénégal di ko sukki di ñu maltraité di ñu torturé di fen di dajale di wuruj di waraj nee naa leen am na journaliste observateur boo xam ne dañ ko jox liggéey ministère de l'intérieur il travaille pour Antoine Diome defaloon naa ko fi benn TikTok Antoine Diome lay liggéeyal ministère de l'intérieur muy liggéeyal Antoine Diome ñu jàpp sénégalais bi nu sosal bi ñu fenal bi ñu duulal bi ñu attaqué de ñu bàyyi benn télé yor làmmiñam di duulal sénégalais yi suba guddi ngoon yàlla wëlbati ko seen kaw ñu jaaxle lool fan yi ndax benn communicateur traditionnel bu bu benn xale am ñu ko jaawale tudd seen turu journal euh, communicateur bi ñoom ñuy tëbaka dal ak wëlbatiku ma bëgg sama rakk Mollah Morgan lool nag xam naa daf leen mere woon moom ba mu génnee moom ci beneen télé ba la doon dal waa waa waa waa waa Séné Sénéweb ah ndax ñaawteef ba ñu def ñoom it léegi ngeen bëgg ñu ne ñoom dañoo bëgg nit ñi def ay vidéo jéggalu seen communicateur traditionnel yéen gis ngeen li ngeen def imaam Alioune Badara Ndao jël ngeen bakkanu imaam jël ngeen bakkanu imaam bu am xam-xam ci Sénégal est-ce que yéen mas ngeen toog une minute déglu xam-xam bi imaam Alioune Badara Ndao di partager ci réew mi imaam Alioune Badara Ndao yéen mas ngeen toog ba déglu ko ba déglu imaam Alioune Badara Ndao mas ngeen toog déglu ko déglu ay waaraateem déglu liggéeyam bi mu defal réew mi est-ce que mas ngeen koo déglu yéen yan façon nit ngeen foo leen juddoo ak foo leen yaroo ah ay dëmm ngeen walla ay nit walla ay nooxóor yéen seen télé boobu lan la deful ci ñaawteef ci réew mi lan ngeen deful ana loo deful ci ñaawteef ci réew mi réew mi li fiy baax yépp yéen mosu leen koo wane vous n'avez jamais montré du bien dans ce pays mosu leen wane lu baax ci senegal lu bon li Cheikh Yérim Seck ngeen di tàllal micro walla band yi gën a bon ci réew mi ñoom ngeen di tàllal micro ñuy wax lu bon di def lu bon di ko teg ci daru gor yi amul ñaawteef boo leen tegul le président Ousmane Sonko amul loo leen deful lu bon ci réew mi imaam Alioune Badara Ndao bokk ngeen ci ñi jël bakkanam lépp luy mambay ñaa yéen la lépp luy leneen ak leneen yéen la yéen ngeen toog di yàq nit ñi suba guddi ngoon yéen ngeen toog ngeen ne yéen da bëgg pour ay doomu aadama ñëw wax setal seen defkatu ñaawteef mais yéen koo leen yëpp dégg leen imaam Alioune Badara Ndao kii mooy imaam Alioune Badara Ndao waa ji dama ko bëgg ba gëmmewuma ko billaahi wallaahi tallaahi lazim yal na ko yàlla yërëm waay yal na suuf woyof ci kawam yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana nit ku baax nit ku lewet nit ku woyof ndeysaan rek la mën ñu ko defaat ndeysaan gàttal aw fanam waa TFM ñoo ko def jox ko fexe ba jox ko Macky Sall ba Macky sàll dugal ko ci ab kaso ndax ay dëggam rek ay position tous ces positions sont factuelles du wax lu ko wóorul gën yàlla doylu kii mooy Imam ndaw kii mooy Imam Ndao ku am yërmande am yëg-yëg ci doomu aadama est-ce que xam ngeen ak lii muy doon def nii yëpp booba man mësuma séq ak moom kàddu dama leen di wax de pour pour vous montrer que Sénégal nit ñi jub ñu ngi jub te teguñu ko ci intérêt imam ndaw man musuma séq ak moom booba salaamaaleykum maaleykum salaam naw naa ko lool mu doon sama idol waaye mosuñoo séq salaamaaleykum maaleykum salaam pour pourtant de bi addu jotee mu addu ci dëgg bi ñëpp dawee parce que bu leen fàtte imaam ndaw moment bii muy ñëw politiciens yu bari ci Sénégal sax na ñoo dëgg luñu politiciens moom mu taxaw jël ko yàq ko tappaleel ko dugal ko ci ay wuruj warat yàq ko ba dugal ko ci biir kaso ñu jiiñ ko ay ay fetal ak ay sarna combat ay millions de d'euros ay lu ne ñu jiiñ ko Imaam Ndao lépp di ay fen fen yooyu yëpp ñëw toj seen kaw bopp yi moom imaam ndaw mii lii yëpp kan moo ko def waa TFM waa TFM seen caaxaan yemul ci imaam ndaw de ñu jàpp le président Ousmane Sonko ci mbirum Adji Sarr bi contumace ak contumace amul ak lu ne ñu invité fi doomaraam ju ne ñu invité la ñu jox la tàllal la micro nga wax Massiba Naaru Laay yow moom neel rek bëgg ngaa wax Massiba Naaru Laay ci Ousmane Sonko ñoom dañ lay daal di woo invité la tàllal la micro di attaqué Ousmane ko guddi di ko attaque bëcc di ko def di ko wax yo that's Fatima shoes télé ngarale la tudd loolu daf koy def pour am sympathie patriote yi moi je connais Bouba li ma Bouba bi ma ko xamee léegi ëpp na fanweeri at ma wax leen ko Bouba Ndour je le connais pas moins de trente ans wala vingt neuf ans au moins Bouba Ndour bi ma koy xam c'est presque quatre vingt quatorze ay vingt neuf ans bi ma xamee Bouba Ndour ak léegi Bouba na ne travaille pas pour Sonko Bouba Ndour ne sympathise pas avec Sonko Bouba Ndour day préparer chitu magam lay préparer pour en cas bu ñu chutee ñoom mu ñëw amaat taxawaay naa fekk boo xam ne il fait semblant il faut savoir il fait semblant Bouba Ndour gëmul dara ci li muy wax da dil la bu ñu teg moi je les connais il faut savoir que moi je connais cette télé je connais les propriétaires de la télé je connais tout le monde dans cette télé ñëpp laa xam lu ma xam sax dafa bari Bouba Ndour day teg dil patriote yi xam nga tey il faut ngen xool ndeysaan euh, te te te man je ne suis pas un égoïste un aigri fan yi rek gis naa suñu ndaw soosu commencé waat ne moom day jaay parfum ci turu Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko marchandise bu vendable la il faut savoir que Ousmane Sonko tey boo defaree ay cheveux sax nga dem daggi ko ci fas nga ne lii mooy cheveux naturels yu bees yi xew c'est les cheveux qui s'appellent Ousmane Sonko day jar da ngay jékki-jékki rek gis gars yi takk ko euh, geenu fas baay taxaw leen topp ñu ne la cheveu naturels c'est tout simplement parce que def nañu tur Ousmane Sonko usman Sonko est une marchandise vendable jaay na boppam marchandise bu jaay boppam kanta nag maintien rek yàlla ak ñun damay bëgg fàttali loolu partisan Sonko yi toujours nee naa leen ngeen sant yàlla ba ngeen amee ay sympathisant dama leen di sànni ay xeer nag xam nga man moom sama xeer yi di doy ndax gis naa fan yëpp ñenn ñi di waxal Sonko di génn di attaquer patriotes yi bu leen dugg ci loolu parce que c'est les sympathisants qui ont bâti le président Ousmane Sonko avec l'aide de Dieu nag donc vraiment je n'aime pas les attaques entre les partisans et les sympathisants on est une grande famille dañu wante les sympathisants ont besoin des partisans les partisans ont besoin des sympathisants nañu ànd doon benn waaye kenn ku ci attaquer sa morom rek affaiblir parti Pastef bàyyi leen loolu xel man bëgguma loolu saa yu ma déggee loolu rek vraiment ça dérange ça dérange ah kenn ku nekk président Sonko nee na leen nul n'est dispensable xam nga y a le proverbe qui a dit nul n'est indispensable maanaam doomu aadama boo indi rek mën nañ koo remplacer mais